rek euh, man buñ ma jàppalee damay jël li nga xamante ni dama koy am ci làmb defaat ko ci làmb buñ ma jàppalee tamit day gën a nooy mais terewul aussi tamit li ñu bëgg a def dañ koy def ba lépp luñ ci yàlla def luñ ci yàlla may ñu ñu xam ne lii la ñuy lañ ci yàlla may mais Zarko en plus dama koy waxaat tey Zarko du pour ma Samba Zarko du pour ma Demba du Zarko wu Khalifa sàll du Zarko wu Adama Faye du Zarko wu Mimi du Zarko wu Modiob du Zarko wu Macky Sall Zarko zone 7B la doomu zone 7B la doomu Grand la Masamba moomu ma ma demb moomu kenn moomu ma Grand ñor zone 7B de Grand Yoff yor moo ñor du du du du du dara aw benn parti faraluma kenn. naa ko bi ma dalee voté PD PDS laa njëkk voteel PDS laa njëkk voteel mooy en 2000 donc faruma ma sàmba nii ma demba mais am na ñi nga xamante ni yàlla daf ma booleeg ñoom te loolu dafa jiitu sama juddu loolu man fu ma mënti taxaw ci àdduna dama koy wax fuñ ma mënti dugal tamit dama koy wax tu xalifa Khalifa sama papa la. loolu dara du ko dindi ci àdduna man duma ko dind te du ma du toog sax fu ñu koy dindee Adama fay sama xarit la sama xarit la mi Mimi turee sama tata la tu vois tant d'autres bëri na père Korofal Korofal sama papa la mais bokkul ak li nga xamante ni dama ko bokk ak xalifa bokkul ak li nga xamante ni xalifa daf ko bokk ak suma famille kooku su suñu famille la lu affaire de famille bokkul ak euh, leneen mais yàlla dafa def man mosuma bokk ci benn parti politique donc duma toog ba tey naan dama ciy dugg yàlla dimbali nañu ba mosuñ cee dugg donc fi ñu li ñuy def nii bay ba ñu egsi fii tey booy na Grand Yoff defuñu ko li Zarko bi ñu doon tey Grand Yoff defuñu ko buñ ko doonee tey yàlla ak eh, eh, parcelle la yàlla ak unité 3 yàlla ak unité 10 ñoo ñu def lu ñu def ñoo ñu def lu ñu doon tey ba ñu ñëw toog tey biir Grand Yoff pour représenter drapeau Grand Yoff bu fekkonte ni Grand dañ dañ dañ tàmbalee suñu lépp biir Grand Yoff mun nañ ne kii li mu doon tey Grand Yoff moo ko def tu mais ñun li ñu doon tey yàlla dafa def dañ ko indaale ñëw bu ko séddoog waa Grand mais bi ñu ñëwee maa ngi si doon waxtaan ak ji bi ne ko man dama am loo xam ne dafa ma metti bu démb doon tey du ma jóge Rock Énergie non du ma fa jógee parce que li ma xam Rock Énergie fekkuma ko grave quoi unité bi amul quoi amul déggoo bi amul jàppalante bi amul Rock Énergie doo am mbër du am combat ba nekk ci dëkk bi di wër déedéet da ngay toog sur la place lépp dañ koy dox lépp dañ koy dox ñu indi la lépp tegal la mais loolu amul grave ci ci sama xalaat quoi bu gàtt dama foog ni Eh, bonne volonté yi nga xamante ni ñu ngi biir zone 7B dañu xeeb doomu zone 7B yi dañu xeeb quoi man foofu foofu laay gisee parce que dama gis nii boo demee Pikine benn taasukat sax bu xewlee ñëppay ñëw ku mënti xewle nga dem nga dem nga dem feneen pareil noonu lay demee mais Grand Yoff man solidarité bi dafa des bu baax a baax. solidarité bi amul solidarité boo xamante ne xam nga dinañ xam ni ñii nii kat bëgg nañ jàppalante wala ñii nii ñi ngi doolalante te loolu mooy pour man loolu mooy doxal kàrce quartier bu bu de bu bu bu bu waree dox dëggantaan foog foog ñuy jàppalante bu baax a baax te des na daal